ginaaw bi nu santé yàlla julli ci sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam nuy nañ mbollem ku ñuy bàyyi xel ak diñu tewlu ci ATV la première chaîne urbaine de Mbour nuy leen ziaré leen bége leen tabaarakallaahu ñaanal leen yàlla bu leen kenn ëppale ci sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ni ko ziar ko baax Seydi Alhaaji Eldo gey mi nga xamanteni ni tabaarakallaahu kilifa kër gi nuy mbollem équipe bi nga xamanteni moy équipe bu technique ak mboolem équipe boo xamante ne rek yaa ngi nekk Thia TV la première chaîne urbaine bu Mbour tabaarakallaahu li war tax nag ñu sant yàlla mooy heure bi daaw fekke woon nañu ko yàlla dogal ñu fekkewaat ko dañ koy sant dañ koy sant bu baax a baax moom yàlla subhaanahu wa taala macha allah ndax heure bi daaw am nañu fekkee woon fekkee wuñu heure bi daaw am nañu fekkee woon fekkee nañu ren waaye taluñu heure bi daaw am nañu fekkee fekke fekkee nañu tal nañu waaye tabaarakallaahu ñu ngi ci ay ñu ngi ci ay xat macha allah kon nag bu loolu yëpp wéyee euh, jar nañu sant ko moom yàlla subhanahu wa taala wax naa leen ne nag ku gis euh, jumaa ju yanji ju tedd ju yiw ji tabaarakallaahu nekk sama ginnaaw nga xam ni ñu ngi ci Touba Mbacké dëkku maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul tabaarakallaahu ngir ñëw wéy si wooteem bu rëy bi nga xamante ne woote na ko ngir ñu ñëw sant la si ko yàlla ci tabaarakallaahu xéewal yi ko defal ndam yi ko defal tabaarakallaahu moo tax équipe A TV déployé moyens yëpp macha allah ñu ñëw tabaarakallaahu depuis euh, démb nekk ci dëkk bi macha allah ngir wan leen lépp loo xamante ni rek moo am fii ci diwaanu Touba Mbacké lépp loo xamante ni rek moo fi xew euh, buñ ne euh, li jiitu màggal gi ak bisu màggal gi ak bu ñu màggalee ba noppi tabaarakallaahu kon nag euh, euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo di bàyyi xel à TV la première chaîne urbaine de Mbour tabarakallahu ah, foofu la rek fii la euh, bu leen zappé bu leen àndal bu leen dem fenn à TV dina leen wanale de wanale lépp loo xamante ni moo am ci màggal gi tabarakallahu ci noone sax tabarakallahu équipe bi comme ni ma la ko waxee ñëw nañu ñaari fan avant màggal gi loolee sax tax ñu def liggéey bu am solo waaye nag li jiitu loolu Euh, dañuy sant di gërëm kër gi nga xamante ni fi la ñu dal macha allah di kër Serigne daam euh, Atta Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nuyu mbooleem njabootam ji tabarakallahu Serigne Moustapha nga xamante ni këram ñun tabarakallahu foofu la ñu ne waaye di nuyu njabootam yi Serigne Abo Mbacke Serigne Laat Mbacke Serigne Abo nag moom tabarakallahu moom yàlla dafa dogal moom sunu xarit la euh, moom bu ñu ñëwee rek. bañ ne ko bay day bëgg ñu ñëw dal ci moom jël lépp rek eh, indi plateau bi ci këram macha allah boobu ba léegi ñu ñuy berndeel ndeysaan di ñu toppatoo dalluwaay bi neex na macha allah ñu ngi leen di ñaanal ci seen barke maam maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko yëkkati leen ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam eh, tabaarakallaahu eh, ginnaaw loolu nag dañu leen di bi ñëwee ci dëkk bi tooguñu benn yoon ñu ngi ci ruq ak ruqaat yi tabaarakallaahu di leen won temps fort yi li nga xamante ne moo xew ci màggal gi eh, ak eh, li nga xamante ne moo fi am ci gan yi ni ñu ñëwee macha allah eh, nit ñi ni ñu ñëwee ci wuy si woote maam Cheikh Ahmadou Bamba mu rasul maamu Serigne Abo Mbacke tabaarakallaahu loolee sax tax na suñuy reporter wàccoon nañ ci terrain bi macha allah dem dugg ci biir Touba Mbacke ak lu ko wër ci biñ nee nag suba la màggal veyu màggal bis ni tey ñu xool gan yi ni ñu ñëwee macha allah ñu nemmeeku lañ daan nemmeeku tabaarakallaahu euh, donte le jamono metti na jamono xat na waaye nit ñi ginnaaw loolu yëpp kenn ku nekk jaayante nga tabaarakallaahu ngir mën a ñëw wuyu si woote maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul tey boo duggee ci dëkk bi di Touba Mbacké da ngay foog ni màggal gi tey la te yàlla xam na ni màggal gi suba ci dimanche gi lay doon waaye ci euh, ci ci altine bi lay doon waaye tey ci dimanche bi boo ñëwee fi nga xamante ne mooy Touba Mbacké li olof di wax nan fo sanni mbattu mu tak nit ñi ñew nañu eh, ci ngon rek ma ngi eh, togn sama eh, ben natango señ mu ndom ci ay 2h 3h yoy ma ko nit ñi dafa melni ni dañuy baye ba suba wala dañuy baye ba guddigi ñu soga ñew ci magal gi ndax heure bi daan na fekk fi do mën jall waye similak sala ñu dem amuñu fu ñu jaar allah ko gis nga dafa li ni daal lii comme ni ko ni ko ñenn mag ñi di waxe li du ay nit sax dama ni rax di ñëw ci màggal gi te itam noonu la ndax fii ñëppay ñëw jinne yi malaaka yi ñëppay ñëw màggal si woote si wuy si woote maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul waaye nag loolu day wane ni rek eh, maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul la mu doon liggéey yàlla nangul na ko ko waaye tabaarakallaahu la ko noonu tegoon yóbbul ko ko yàlla da koo fay waaye tamit da koo fayul waaye tamit fay na ko ba eh, tabaarakallaahu ba wis ko ndax tabaarakallaahu fii ñu toog boo wàccoon ci suuf wax dëgg yàlla pour nga génn rek accéder ci benn eh, beneen angle bi nga xamante ni fa fa nga bëgg a dem doo mën a dem ndax nit ñu bari macha allah te tey du màggal suba la màggal te boo xoolee li ne ci tali ci tali bi ci ay oto di ñëw tabaarakallaahu da nga naan lool sax est-ce que Touba mën na ko contenir waaye tabaarakallaahu lool day wane ne rek liggéeyu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul eh, tabaarakallaahu bi mu liggéeyi woon tabaarakallaahu yàlla nangul na ko ko eh, mu ngi noonu kon nag du ñu def lu dul ànd ak suñuy reporter ñoom wàccoon nañ ci ngoon dem ci li nga xamante ni fi nga xamante ni mooy dëkk bi euh, macha allah euh, xool ndax euh, nan la gan yi ñëwee xool nan la li nga xamante ni mooy taalibe maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye du ma wax sax taalibe maam Cheikh Ahmadou ma Khadim Rasoul waaye mboolem umma islamique ñëw nañ fi ndax dëkk bi boo ko vérifié ba vérifié ko amul ma dem te ñëw amul yaakaar naa di fi gis sax ñoo xamante ni bokkuñu ak ñoom diine. waaye ñu xër ci maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul euh, gis li nga xamante ni tabaarakallaahu wala boog nangul ko li nga xamante ni moom la ko yàlla may ñu ñëw ci dëkk bii di Touba Mbacke ñëw ngir euh, bokk ak mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ak euh, ñi nga xamante ni mooy mbokki taalibe yi li nga xamante ni mooy màggalu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon nag waa régie sans plus tarder dañuy daal di dem fi nga xamante ni mooy régie ñu dégtal leen élément yooyu suñu dikkee nag daal di koy commenté dinañ fi dalal nag suñuy ay gan ku ci mel ne suñu père Mansour nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu kër gi fii euh, euh, ci dalu sëñ Abo ak sëriñ euh, Laat macha allah moom lépp lu jëm ci wàllu bernde wàllu xaw ma nan la ko tubaab bi di waxeeti gastronomie la foog naa moom moo koy yore tabaarakalaaw daan ko fi dalal léegi mu wax ñu nan la ñu nan la ñu waajalee gan yi waaye tamit ren macha allah. li olof yi di wax naan ku yokkul rek da ngaa wàññi ren bi ñu ñëwee macha allah gis nañu yeneen innovation yi nga xamante ni yu bokk tey yiñ fi gisoon daaw eh, ki nga xamante ni nag moo piloté loolu incha allahu ci kanam tuuti ginnaaw bu ñu seetaanee élément bi ba ñëw dinañ ko dalal eh, macha allah mi ngi noonu ñu ngi leen di fàttali nag ñu ngi ci Touba Mbacke kër Serigne Dame Atta Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom maam Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasoul waaye nag plus précisément ci fi nga xamante ne mooy ci Serigne Abo Mbacké mu baax mi yàlla na fi yàgg lool te wér lool kon régie ñu dem ngeen dégtal ñu loolu ñu ñëw commenté ko te daal di dalal suñu gan yi à vous l'antenne mooy màggal euh, tey veyu màggal bi la nga gis nit ñi ñëwee nii tabaarakallaahu wax naa la euh, tous les confrères yi nga xamante ni confondus au Sénégal même ñi nga xamante ni sax ñu diine boo ñëwee ci dëkk bi da nga leen fi fekk ñu ñëw xencu si euh, li nga xamante ni mooy euh, yiw waaye tam euh, ñëw jàpp ci liggéey bi nga xamante ni maam Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul njabootam gi mu fi bàyyi tabaarakallaahu Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te wér ak mboolem njabootu maam Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul gi ànd nañ ko piloté ko ba màggal gi tabaarakallaahu jaar ni nga xamante ni noonu la mës di jaar Euh, tabaarakallaahu loolu nag euh, dañ cee doon ñëw rek ëllëg dinañ ci ñëwaat duggaat ci ruq yi ak ruqaat yi incha allahu taala ngir gën leen a dundalee ak li nga xamante ne mooy màggal gi macha allah euh, wax naa la nag ñu ngi fii nga xamante ni mooy kër Serigne Ibrahima mbake moom Serigne maam Cheikh Ahmadou kër Serigne Dame Atta Mbacke moom Serigne Ibrahima mbake moom maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye nag ñu ne eh, ci dalu ki nga xamante ni eh, Serigne Abo Mbacke ànd ak eh, ay rakkam yëpp ñu gën cee xàmmee nag wala gën cee miin sëñ Laat Mbacke macha allah ñu ñëw ci dal bi nga xamante ni macha allah dal bu neex la waaye dal bu bëri jàmm la boo xamante ni macha allah ñi fi nekk ñëpp ay borom baax lañu ñu toog nag ak suñu papa sëñ Mansour mu Serigne Salihu Mbacke. tabaarakallaahu euh, moom wax naa la lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu dal beeg yu demee noonu ci wàllu bernde yi moom moo ko yor loo gën a xam xam ma sàmba ma sàmba gën laa xam boppam dañ koy bàyyi ak mbooleem euh, euh, mbokki téléspectateurs yu ATV mu nuyoo ak ñoom présenté wu Baye Mansour nuyu nañ la fay lañ la pap hmm. asubilahi mina cheytan rajim hmm. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin hmm. si barke maam Saliou Mbacke si barke maam Saliou Mbacke si barke maam Saliou gi ñu sant yàlla jëm si yonente bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doole sant seen Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba suñu maam bu baax ji di sant bu baax a baax sant bu am ab di sant Cheikh Saliou Mbacke di ñaan yàlla suñu borom yokk leeram te tax si barkeem di ñaanal Cheikh Ibrahima Mbacke ñu njabootu bokk si doomu sëñ Tuubaa hmm. yàlla yokk leeram te tax si barkeem di ñaan yàlla sëñ Muntaxa fi xam mooy yoon yoonu murit hmm. te nekk suñu kilifa ak suñu xalifa hmm. yàlla saxal ko fi defal ko wër may ko tawféex defal ko Cheikh euh, sëñ Daam Mbàkke boo xam ne ma du Cheikh Ibrahima Mbàkke yàlla saxal ko fi moom it defal ko wër amiin yàlla bàyyi fi njabootu sëñ Ibrahima yëpp amiin incha allah bàyyi leen fi defal leen ci tawféex yàlla sàmm leen bàyyi fi sët yi yàlla sàmm sëtu Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Saliou Mbacké yi yàlla bàyyi leen fi defal leen fi jàmm yàlla defal ko mbokk taalibe yi defal la ko yow it amiin incha allah defal ko mboolum jub alhamdulilah jërëjëf loolu am na solo nuyoo bi tabaarkalaaw macha allah teey na tedd na waaye am na solo Papa Mansour tey bu ñu bëggoon xam yow lan euh, euh, maanaam lan nga doon ci kër kër gi wala bokk lan nga doon ci dal bi macha allah. alhamdulilah jërëjëf sëñ Pape. Hmm. gannaaw bi ñu sant sëñ Saliou Mbacke sama yaakaaru tey ak ëllëg. Hmm. maa ngi dolli sant bu baax a baax a baax. Hmm. ah di la gërëm bu baax. si question bi. am na solo lool lool lool lool. parce que hmm. xam naa yenn saa yi bokk taalibe yi gis ba si kër gi. waaw <laughs> ma laxasaaru takk sama hmm. di ginnaaw. liggéey sëñ Touba Xaadim Rasuul. Hmm. Cheikh ah, xam ni si loolu la ñu nàmpatee. liggéey. sëñ Touba si kaw suuf. te doon bàyyi faalu kër gi rek. dëgg ah, yàlla boole ma ak sëñ Abdou Lahad. mu doon sama xarit sama soppe. doon sama sëriñ aussi. parce que sëriñ du tuuti. te njabootu sëñ Touba yëpp. muy sët yeeg yëpp suñu sëriñ lañu. ñun ay nongo lañu taalibe lañu. Mm. doon ay jaam mm. la. fas yéene liggéeyal sëñ mm. ba xëy tàbbi di àjjana. loolu rek la ñuy te loolu la ñuy jëm. te kër gi aussi ñu xaajal yaatal ma fi. jox ma si wàllu organisation màggal ga. ma am si cër. ba xam ne bon cëru cër gi ma sëñ Saliou cëralee si kër gi la. ndeysaan ndeysaan parce que sëñ Saliou damay jàpp ni sëñ Saliou moo ma booleel. ak sëñ Abdou Lahad. ndeysaan mu doon sama xarit doon sama soppe. ak sëñ Abo. doon jëriñu ndongo yi waaw moom sëñ abo moom mooy jëriñu ndongo yi ñu fi teew ñun taalibe yi suñu jëriñ yàlla def rek ma doon jëriñu waañ bi di nekk si wàllu berndel yi dalal gan yi hmm. wàllu toppatoo hmm. nit ñi ak daal li xam lépp loo xam ne war nañ ko def si màggal te hmm. wala sell yàlla jaga jagaloo ma ko waaw di sant yàlla bu baax a baax loolu daal la mooy sama rôle si kër gi. ci kër gi macha allah euh, mu ngi noonu wax na euh, wax nañu mooy kan waaye itam wax nañu lan lay représenté ci biir kër gi euh, tabaarakallaa kon yaakaar naa képp koo xamante ne yaa ngi seetaan à TV tabaarakallaa wala nga doon gis sëriñ suñu papa Mansour ci biir kër gi muy dem ak a ñëw di nga xam ne nag léegi lii moo tax muy dem ak di ñëw yore lépp loo xamante ne mooy organisation kër gi waaye papa xam nga màggal buñ ko waxee aspect daf day bokk waxuma moo ci ëpp solo waaye buñ ko waxee rek xel yépp da ciy dem mooy be mooy euh, mooy bernde tabaarkalaaw tey jii kër gi macha allah yaakaar naa dem ba léegi ñëpp nit ñaa ngi fi ñëw kenn xiiful kenn marul te loolu incha allah euh, kanam la jëm fii ba euh, après màggal kenn du xiif kenn du mar mais loolu nan ngeen ci wàllu organisation bi nan ngeen def ba piloté loolu ndax doonoon na lu yomb wala lu yomb ndax ndax liggéey bu yàgg la ndax. da ngeen a jóge daaw rek nekk ci di ci liggéey wala da ngeen di bàyyi ba màggal des ay fan macha allah ngeen commencé di ci liggéey. alhamdulilah sëñ Pape jërëjëf. Hmm. loolu aussi question bu am solo la. Hmm. te jar na bokk taalibe. Hmm. doomu aadama xam. parce que ba gis ba ku tedd ki woote. ñu boole ko santal yàlla. dafa ñuy jàng Alxuraan ak xasida yi. ñu boole si benn lu ko dara ginaar xar gëléem gëléem mhm. kon bàyyiwul dara dëgg la yàlla def ñu koy def di ko def ñu mhm. ak cant mhm. ñu xëy ku nekk jaar fi dëgg la waaw ku nekk jaar fi toogal ko si jal bi doon représenté ko mu doon xalifa ba yàlla def rek ñu indi ñu Cheikh Saliou Mbacké yaakaaru jaam borom njur borom jamono borom buur moom moo ñuy jàngal luy bende ah. moom moo ñu gëm xamal luy bende si màggal nit ñi taalibe yi fonkoon nañ ko lool lool lool. Hmm. mais ku tedd ki Cheikh Saloum Mbacké. Hmm. ba mu ñëwee. Hmm. moom ci boppam. moo ñu woon lan mooy bendel lan mooy màggal. mu ñu màggal gi jàngum Alxuraan baax na si. jàngum moom xase bi baax na si. waaye lu si ëpp mooy aussi ñu bendel jaami taalibe yi ba seen xol sedd guy. Mm. xam nga nit moom. Mm. dafa mel ni saako ceeb. dëgg la su biir bi dara nekkul. Ah. pour mu jaam yàlla day. mu jaam yàlla di yomb de. waaw yëkkati turu yàlla yombul. <laughs> Uh-huh. te soo ko la yëkkati day fekk sa xel dal. dëgg la te xam nga soo xaabale ñu allahu akbar di xalaat dépense wala mm. xalaat lekk. waaw day doy waar. dëgg la de moo tax sëñ bi dimbali ñu si loolu. te ñu ngi koy sant sëñ ba yàlla dafay ba ñu xamee luy benn. ñu nekk ko si kër gi rek di def préparation. xam nga màggal kenn ko préparer kenn mënu la xam nga sëñ budgété du xaalis bu ñu budgété. dëgg la de. lu may yàgg a wax sama mbokk taalibe yi dama leen wax ni leen sëñ bi moo yor teenam dëgg la su waxtu bi jotee hmm. mooy jël baagam sat si biir hmm. root hmm. jox taalibe yi dëgg la ñu ñëw defal ko si absolument kan moom lu ñu jox la ñu koy delloo kan ab dénkaane la léegi su wax bu jotee moom moo ñu koy joxaat ñu delloo ko si macha allah waaye ku toog daa naa temps su màggal kooku day wax day calculer waaye dina ko weesu da koy weesu ko dëgg la tey mbirum sëñ Touba yàlla dafa def amul tànk ginnaaw tànk kanam la am dëgg la defee ñaar dërëm hmm. suba da nga bëgg def ñetti dërëm hmm. ginnaaw suba bëgg bëgg def ñeenti dërëm ginnaawaat suba nga bëgg def fukk hmm. noonu la mbirum sëñ Tuubaa demee moo tax kenn mënu ko buddi moo tax lii su jotee bon du lu di na day ñëw te bés bu bés jotee sëñ bi su boobu mooy joxe ko alal googu mu jox ñu dañ koy delluwaat si taalibe yi loolu rek la mais mënuñu ko buddi man mënuñu wax ñaata xar lañ jënd hmm. mënuñu wax ñaata ginaar lañ jënd hmm. te yàlla dafa def ba ñu ñëwee dëpp àjjuma ba léegi hmm. la ñu ñëw ñun àjjuma ba léegi ñii rendi ñii lekk ñii naan kon xam nga loolu du budget boo denc waaw kay loolu la euh, macha allah euh, loolu am na solo réponse boobu itam tabaarakalaa foog naa yéen ñi seetaan dina leen euh, di ngeen ci am satisfaction macha allah suñu papa Mansour lañ toogal mu yor lépp loo xamante ne mooy wàllu organisation surtout jëm ci waañ bi fii nga xamante ne mooy kër Serigne Dame Atta Mbacke plus précisément dalu Serigne Abdoulaat Mbacke ak euh, Serigne Abo suñu xarit yooyu nga xamante ni tabaarkalaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokku leen yëkkati leen ci darajey seen maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul euh, papa dañuy euh, duñ la téye lu yàgg ndax xam naa ni suba yi lay xaar xaw naa kii dañuy ñëw rek ci avant dernière question wala dernier question macha allah ren gis nañ ni macha allah am na beneen innovation bu nga xamante ni am na. Eh, ndax daaw ñu ngi fi woon daaw jéeg ñu ngi fi ren yàlla dogal nañu ñëw yàlla nañu yàgg ñëw yàgg leen fee fekk ci barke yonent bi ren nag ñu gis eh, beneen xar kanam beneen xar kanam bu bees ci wàllu organisation surtout ci wàllu waañ bi lu waral lool. macha allah alhamdulilah rabbil alamin. sëñ Pape dañuy luy dëgg. Hmm. day jëm kanam dëgg la. te escalier soo siy yéeg si ay marché la. dëgg la da ngay yéeg si benn ñaar ñett ñeent ba dem sommet. Hmm. léegi bànqal gi la noonu la innovation yi. soo yenn saa yi da ngay seetaan sax màggal 1961 1962 1972 ba 2000 da ngay xool bokkuñu jëmin hmm. màggal gu nekk ak jëmin waaw yàlla dimbali ñu ret hmm. ñu dem indi benn innovation bu bees hmm. ñuy ret daaw kat defaroon nañu leen ren dañuy defaat leen loo xam ne dina fëgg si bët doomu aadama dëgg la aussi kaf fooree dëgg la moo ñu fi ak jaamu yàlla dëgg daal di toog ñun ñu dund Mm. fàtte stress yu àdduna dëgg la lii dañuy dimbali mm. parce que fu mu nekk ni stress yu bëri dañ koy fàtte wallaay dëgg la waxu màggal la ñuy wax fu mu mm, nekk suñu jógee màggal daay wax waxu gàmm suñu jógee gàmm wax waxu kii xam nga jàmm yàlla dafa neex dëgg la te amul lu dàq mu jaamu yàlla si kaw suuf dëgg la loolu nga yàlla jaamu ko si jaam dëgg la waaw ak taalibe yi waaw te loolu la ñu yàlla dimbale sëñ bi jàppale ñu si loolu dëgg la ñu koy def lii rek ñu def ko ren xam ni mbiru avancement rek la diine avancement la l'islam avancement la suñu réew mi moo tax ñu war a tey ñu def lii yëpp su subaar incha allah rabi mm. yi ay ay ay surprise yu bëri am na fi soobu yàlla <laughs> ah. am na ay ñu ñu wala waaw sëñ Fallou xase borom jumaa ji sëñ Fallou da takkat jumaa ji jàkk jumaa ji mm-hmm. suba dafa war a ñëw mm-hmm. yëkkati ay xase mm-hmm. loolu ay tawféex la loolu yëpp dañ ko bëgg a def suba ñu surprise ñu bëgg a def mboqum taalibe yi wala lañu màggal bis bi santal ko yàlla suñ tubaab bi ñu xam moo ñu ko wool suñu maam ji baax daal di bëgg suñu àdduna baalante ak booloo xol ñu doon benn loolu lañ si jublu te yàlla ñu si yàlla jëm yóbbule jàmm dafa ñu si jàmm daal loolu ñu si ñaana yàlla jërëjëf mu ngi noonu suñu papa Mansour euh, yaakaar naa euh, waxtaan wi doyaluñu waaye yéen itam doyaloo leen waaye ku ne xam na ni macha allah lu toll ni màggalu Touba euh, dal bi ku fi ñëw macha allah gis ni mu toll ñu jël lépp lu jëm ci wàllu organisation surtout ci wàllu berde te muy aspect bu am solo ci li nga xamante ni mooy màggal gi yow nga gere loolu. Eh, tabaarakallaahu kon nag kooku duñ ko téye kon ku la ku ne xam na ni am na lu koy xaar suba incha allah kon nag dañ koy bàyyi mu tàggatoo joxe kàddoom gu mujj ci li nga xamante ne ci la ñuy def eh, ci la ñuy eh, ci li nga xam ne moom la ñuy def waaye yéen ñuy bàyyi xel bu leen dem bu leen zappe xaar leen ñu li dàq mu ngi ñëw kon papa da ngay ñëw sa kàddu gu mujj daal di tàggatoo incha allah. Mm-hmm. sant di la sant bu baax a baax. walaay walaay dëgg la sant chaîne bi. Mhm. di ñaan yàlla aussi yàlla jëmale ko kanam. amiin. te kan nu ma leen waxoon daaw rek. dafa naa soo xoolee ren yokk ngeen. waaw te taw féex la. kan loolu. yàlla ngeen dem ba raw romb city ba mu doon ci télé. loolu laa leen ñaanal di ko ñaan si bésu màggal gi. dafa naa daaw ba ma leen ko waxee dama leen ñaanal naa leen ko si bésu màggal gi. ëllëgee soo ñëwee romb fii. daal am fo len tollu defe naa soon xoolee ci décoration bi ak installation xassa go la xamni amna fuñu wara toll yàlla na yàlla defal jàmm yàlla defal len tawfiq di len sant rek di len ñaanal yàlla ba suba jàmm inshallah su nexe yàlla suñu borom son fi ñewé ci sar fi len lu xamé wax ma li fëkk seen bëtt waye lu xamé tay jël na jël nañ ko ci dimension magal ak li magal gi laaj su nexe yàlla suñu borom di len sant bu baaxa baax jërëjëf mu ngi noonu yow itam cant ak ngërëm ñeel na la tabaarkalaaw xam naa duñ la téye lu yàgg dañ lay bàyyi nga daal di dem dallu ji ndax suba war ngaa teel a xëy ngir euh, comme li nga wax rek euh, nekkaat ci liggéeyal maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul euh, kon nag en attendant ñu lay gunge dem régie tabaarkalaaw seeti leen ñu am lu ñu dégtal incha allah ñu dellusiwaat ci plateau bi euh, continuer li nga xamante ni mooy euh, euh, émission bi waxtaanee màggalu maam Bamba Xaadimu Rasuul kon régie à vous l'antenne قال قال قال قال قال قال أكرم به ربي قال قال قال ليلة قال قال قال قال قال قال قال قال قال أبد الجمال ليلة خير فاسيلا من نوز البحر قد جابت ميه لأهل خير وباب وأنا أنا أكابليكاسيون أكابليكاسيون بوري أم أكابليكاسيون هذا

kaay bee bàyyi te xam naa yaa gën a bàyyil baaxi sóoróore lil julla saay lam te daare baadan najaay waaw hinna sabaxi wa fil masaa salaatu ay ca mu ngoog euh, régie euh, santaat nañu leen gërëm leen tabaarakalaaw euh, ci loolu am lu am solo lool nga xamante ni dégtal ngeen ñu ko macha allah ba tey dañuy continuer ak yéen plateau bi nga xamante ni plateau veyu màggal gi lañ ko tuddee wala plateau waajal màggal gi macha allah ñu koy defee fii nag ci. kër Serigne Dame ata Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul sànq gis ngeen suñu gan gu màgg bu tedd gi ñu amoon li suñu bàyyi euh, Mansour euh, nga xamante ni euh, moom lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu organisation fii ci kër gi macha allah moo ko yoree jëm ci wàllu restauration bi waaye nag ñu ngi fegoo ba tey ci suñu ndeyjoor ak euh, sunu yaay ji nga xamante ni euh, macha allah moom itam euh, responsable la ci wàllu jigéen ñi fii nga xamante ni mooy waañ bi dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo wax ñi moom mooy kan ak gën ñoo présenté boppam ba ñi nga xamante ni mooy mbokk internet yi ak mbokk téléspectateur yu ñu bàyyi xel ci ATV gën ko xam soxna si ñu ngi lay ziar. yal na yàlla mhm. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen. gërëm mm-hmm. di sant yàlla di julli ci Muhammad sant sama ñaari waajur mm-hmm. moom mi ma tax ma jokk ci yoonu murit mm-hmm. doon nag bàyyi faalu sëñ daam Abdourahmane ñu gën koo xam ci sëñ daam Atta ndax euh, ñun dañuy wax ne sëñ daam Atta yal na fi yàgg lool te wér di ñaanal yàlla xalifa général kulli murit yàgg fi lool sëñ Muntaxa xaritam bi ñu yàgg fi lool njabootug sëriñ Touba yëpp yal nañ fi yàgg lool te wér ñun nag ñoo ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima mbàkke ñun sunu papa sunu baay Cheikh Ibrahima la doon topp ci magi Cheikh Ibrahima yi la bokk tey ci kaw suuf ku fi Cheikh a bàyyi woon tey sam papa rek moo si des kon yal na fi yàgg lool te wér ginnaaw nag bu ñu santee yàlla julli ci Muhammad ñuy santaat yàlla bu baax a baax a baax. fekke wat magal gi magal gu nek ngeen ñew fi yal na ngeen fi ñewat yeneen téméré magal télé bi bi mu bëgg yegg yal na ko fa yalla yeggalé ci barke Serigne Touba ñuy ñaanalat nak serigne dam abdourahman ak njabotam ak rakam ju bax ji serigne As ñu xam ko gën ko xam ci serigne fallu serigne As Mbacke yal na fi yàgg lool ti wér ak njabotam yépp di ñaanal yalla njabotuk Cheikh abdourahman yag fi lool muy serigne dam Atta njabotam yal nañ fi yag waañ bi nag ni muy doxe mooy macha allah macha allah dara jeexul kër gi gileem yi day daanu nag yi day daanu pison yi dañuy daanu ginaar yi dañuy daanu dara manqué wul lépp lañu sëñ Ndaam Abdourahmane di defal macha allah bu màggal bu jotee amul fu fu nekk fu ne ruq nekk ci kër rek nag daanu na fa lépp daanu na fa kon ñoo ngi sant fii nag mm. eh, ci kaw nag dalu laat xaadim la laat ma macha allah macha allah moog abo macha allah dal bi neex na lool dara wut mm. fi am mm. comme ni ko Mansour waxee rek mm. ñuy ñaanal yalla suñu soxna si di soxna seigne dam at muy soxna Astu Mbàkke yag fi lol te wër bala isa moog borom kërëm yalla na fi yag ndax mom moy suñu buntu kër ci kër seigne mom, ndax mom seigne abdourahman moko jëlone dama ndiaté demal andak soxna Astu wax yalla ma sha allah ma ñew nak soxna astu yaatal ma lu ñuy def ci wañ bi rek man lañuy laaj hmm. lu waxit man lañuy laaj kon loolu ñun amuñu fayam hmm. yalla rek lañ koy hmm. sédel di ñaanaat yalla yalla dimbalañu ñu ba ñu yegg ci sadiq ñun sadiq lañ bëgg doon man nak ci bay fallu Cheikh abdourahman ni la man sëñ dam atta rek la gëm ginnaw buma ma yalla sante samay wajju sëñ dam atta rek la gëm mom lay sago man dal fuma taxaw rek señ bi rek la señ bi rek la man man daal sëñ Abdourahmane moy sama buntu ci khadim rasoul ya mu ngi nonu lolu amna solo euh euh sohna ci euh, wax waxna li nga xamantene moy relation am ak wa keur gi waaye relation am ak euh Serigne Dame abdourahman euh, Mbacke ñu gën ko xam ci euh, Serigne Dame Atta Mbacke waye dañuy ginaaw bu avant ñu ñëwaat ci li nga xamantene moy dal bi ak li ngeen di wàcc subaak Euh, yu demee noonu euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne moo waral dal bi mooy màggal gi màggalu ren gi gis nga macha allah image yi mu ngi koy wane gis nga ni nit ñi tabaarkalla wuy si nañ woote maam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul euh, ci ci gàttal daal nan nga gisee màggal gi ak ban yëg-yëg nga ci am. màggal gi moom neex rek. Hmm. année bu jot rek day gën a neex. Hmm. ndax màggal bi moom macha allah. Hmm. nit ñi ñëw nañ man léegi léegi dama génn dama tiit. dëkk bi kenn xaju fi. macha allah macha allah ñëpp ñëw nañ ndax ñun khadim rasul rek lañ am ñun murid mom magal rek la am moy suñu événement moy suñu lepp kon ñun dal, ñuy ñaan yalla dal, di fekk yeneeni magal te bok nak ci milliardaire serigne Touba yi mëna nak di defal suñu serigne yi ci milliardaire serigne Touba yi li ñuy def ñuy ñaanal borom dal bi yalla nañu tok ba dara du manqué luñu lamb rek gëna mu gëna té neex di ñaanal njabootu Cheikh Abdourahmane ñom ñepp njabootu Cheikh Ibrahima rek ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek lépp loo soxla yal na la ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. jërëjëf euh, kon nag euh, soxna si duñ la téye lu yàgg comme li ñu wax sànq sunu papa Mansour euh, xam naa ni suba. li leen di xaar bari na macha allah waaye dañ leen di dañ lay bàyyi rek nga daal di joxe sa kàddu gu mujj ci li nga xamante ne mooy lii ñuy def ëllëg incha allah eh, du ñàkk dinañ dugg ci waañ bi wanale eh, wan leen wan mbokki téléspectateurs yi fii li fi xew tabaarakallah ak mbooleem waañ yi nga xamante ni ñoo wër kër gi ak yi nekkee fii ci dëkk bi maam ruq yi ak ruqaar yi ATV dina fi dugg wan leen ko kon dañ lay bàyyi rek nga joxe sa kàddu gu mujj ci émission bi waa xanaa sant leen rek ndax li ngeen def yombul ñëw fekk ñu suñu waañ bi jël ñu wane suñu liggéey ci Serigne Touba wax dëgg yàlla sant leen di ñaanal leen ya lu ngeen fi ngeen bëgg rek yal na leen fa yàlla dogal suba nag fii dara du fi jeex gileem yi dina daanu nag yi dina daanu pison yi dina daanu ginaar yi dina daanu loolu daal xam naa ko ci jéemal xoolaat beneen jigéen nit nga laaj ko rek waaw ah. bul dagg émission bi ah. laajal keneen day neex daal macha allah. kon jeex euh, na soxna si kontaan nañu ci yow euh, bu baax a baax tabaarakallaahu xam naa euh, macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy ñëw gi nga xamante ni ñëw na ko ci suñu plateau plateau wu ATV la première chaîne urbaine bu Mbour nee naa la plateau spécial plateau waajal màggal gi la fii ci ATV la première chaine urbaine de Mbour xam naa nag li duuf ci nag bi yëpp xaajandoowul ci cin li pour pour pour pour bañ a wax ni li duuf ci nag bi xajul ci cin li waaye li duuf si nag bi xajandoowul ci cin li di sant di gërëm bu baax a baax yéen ñi doon topp ci ATV la première chaîne urbaine de Mbour waaye di sant bu baax a baax toute l' équipe technique bi nga xamante ni wax naa la ñoom macha allah ñoom ñi ñuy feeñal feeñuñu tabaarakallahu euh, di ci jiital nag directeur général Alaaji Eldo Guèye euh, ki nga xamante ni mooy Mouhamadou Ndom magum kër Pape Saliou ñoom ñoo ne ci wàllu cadrage bi euh, buuba moo nekk ci wàllu son bi ki àdduna ngeen di teewlu mooy Papa Samb bu Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam di leen jaajëfal euh, bu baax a baax euh, ci seen teewlu ak seen wóolute ñeel ATV la première chaîne urbaine de Mbour mooy dàq ci yeneen incha allahu nee naa la màggal gi dara du leen ci ump ak ATV la première chain urbaine de وجاءت كلي بحمد وسكون إلى قليل المؤمنين وسكون وجاءت كلي بحمد